jëf mbokk téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte rek di ànd ak yéen saa su nekk tey nag ku gis ma taxaw rek xam ne ñu ngi ci daara ji kaw bii di du université Cheikh Anta ñu fi lenn la mooy rek euh, mbirum Diary Sow ñu toog ba démb rek ki nga xam ne ñoo moo di Diary Sow ñu xam ne ne mi ngi ci loxoy autorité sénégalaise fi mu toll nii lu xew Diary Sow nee na nangu euh, dellu fële ca école bi nga xam ne rek fa la jàngee lépp luñ ci mën a am rek dinañ ci ànd ak étudiants yi ñu daal di faram fàccal leen ki di Diary Sow mu ngi ci euh, loxoy autorité sénégalaise sénégalaises yi yow ban jàngat nga ci pense que histoire bi duma ci sori parce que xaw ma ci grande chose parce que la situation est très délicate donc affaire bi daf ma daf ma jëlee kaw mu ngi mel ni comme histoire Tom et Jerry ba léegi mënu ma comprendre kam moo tooñ kam moo nekk ci dëgg tu vois et pense que jaar yi waroon na fële feneen fudul fii te boo xoolee étudiants yi ni ñu sonne sonnee woon étudiants yi laay wax sax ñoo ci gën a sonn parce que gars yi wàccal nañ ko fi kaamil gars yi defal nañ ko fi ay ay ñaan defal ko fi ay sarax. ñu toog ba benn jour moom mu toog ba heure bu ko neex bind lettre naan ci lii ci lii ci laa ci wax on comprend pas quoi comprend pas ba léegi xamuñu la moo xew xamuñ ak nuñ ci sonne woon yëpp suite bi mu mu demee nii donc daf ñoo jëlee kaw. kii di jaari Sow lànk na rek du dellu ci école ba nga xam ne fa la doon jàngee nga yaakaar ne nekku na jaari dafa amul note moyenne bu baax pour dellu ci euh, école boobu noonu wala dafa am problème familial ban jàngat nga bon loolu moom du ma ci sori parce que moom c'est sa vie privée quoi waaw bu bëggul bu bëggul delluwaat c'est sa vie privée mais je pense que li mu jot a acquérir ci connaissance ak lu mu jot a acquérir ci expérience malgré que xale la mu nekk ñaari yoon successif meilleur élève di Sénégal même bu méttee sax warul bàyyi donc moom bu méttee mu bàyyi rek c'est parce que je pense que mentalement elle n'est pas prête et mentalement elle devrait être prête donc warul bàyyi quoi import importe métti bu mu mënti dund po importe loo xamante ni dund na ko mu métti wala lu neexul wala mu ñàkk am ay note dafa war a gën a fight parce que muy sénégalais muy sénégalaise surtout tamit nga nekk pël je pense que pël ñu ngi koy xamee ci ful ñu ngi koy xamee ci fayda ñu ngi koy xamee ci jàmbar jaari jaari warul bàyyi voilà méngoog demam bi nii woon ne rek euh, am na yoon boo xam ne tracé na ko ba pare nga yaakaar ne jaar yi bëgguñ koo tracé yoon boo xam ne bokkul ak xam ne jël na ko. bon je pense que état la ci kenn waru ko choisir lu mu war a def donc moom moo war a xool lan lan moo koy arrangé lan la bëgg def mu def ko bu fekkee tamit loolu arrangé wul nit ñi bu ko arrangé na ko def parce que boo toppee nit ñi je pense que li nga bëgg def doo ko def et la personne devait être libre. sa liberté mooy yow lépp loo bëgg a def nga def ko nga nekk un self made man américain di waxee boo bëggee wax diw nga wax diw boo bëggee def di nga def li bu demee ba sa sentir retour à l'aise li mu nekk nii na defee lu ko neex te xam ni après voilà na assumer conséquences lu ci mënti am. moi je sais pas ce qui a poussé euh, Diarissé en tant que tel à fuguer mais tout ce que je peux dire en fait c'est d'aller doucement avec elle pour

message lancez-vous à Diary Sow Qu'elle ait pitié de ses parents, qu'elle revienne, qu'elle prenne tout le, euh, qu'elle prenne tout le temps qu'elle veut, mais qu'elle revienne pour le bien-être de ses, ses parents et tout. Et pour éclaircir les choses, parce que les rumeurs passent en fait. On ne sait pas faire ça. Donc sa propre version fera taire les rumeurs en quelque sorte. oui ce matin maa ngi gis benn information si YouTube bi disant que ni Diary Sow mu ci loxo autorité sénégalais yi bëggoon naa si wax boobu ba yàgg mais aw moon opportunité bi quoi parce que depuis ba mu disparaître ba ba tey ñu ngi nekk ñun ñu ngi naan dañ ko enlever dañ ko kidnappé ak lu nekk ñu jëkk ja gis benn lettre buy circulé lettre boo xamante ni ñu ne jaar Sow moo ko bind moom mi ne mu ngi si jàmm te ñun nekk ñoon si jàmm depuis ba mu disparaître ba léegi suñ xel yi dalul moom mi ne xelam dal na te même bi dee moom feeñ na si jàmm tamit mu war a inquiété wu pour ñun mais sénégal yëpp inquiété wu pour moom moom mu ñëw ne moom inquiété wut amul benn problème mu ngi si jàmm ak salaam xam nga loolu tamit benn yebaateel parce que jaarata aussi tamit comme ni ko boobu Ndour waxee elle est n'importe qui mais eh, waaw élève la comme yeneen élèves yëpp donc ñun tegoon nañ ko fenn fii mais ñu ngi koy bëgg a même si si des elle fii meilleur élève du Sénégal deux ans successifs aussi tamit mu ngi ñu commencé décevoir vraiment bi nga xamee ne teg nañ ci moom loxo euh, jaari li mu xam ne rek mooy. du retourné ci école boobu nga xam ne fa la doon jàngee. waaw gis naa effort bi ne moom du dellu lieu de grand xaw ma ak euh, jaayum jaay kii xam nga amoon na benn ouvrage bu mu bindoon. Mhm. commencé nañ ko jaay aussi tamit neen du delluwaat encore tamit. Mhm, yaakaaroo ne dafa amul noot wala problème de famille la. xam nga lieu de grand aussi xamante ni ay kàngam ñoo fay daje. ay Sénégal bu ñu yóbbul foo taxul dama gën ay foofu te soo tàmbee di raw nit ñi dem fa la fekk fa say say morom yu lay raw. peut-être mën na la décourager nga ne doo yeggali parce que xamul loolu mën na fekk ne loolu la. su fekkee laaj tuuti rek ci mbirum Diary saw yëg nga ne mu ngi fi mu nekk nii ci loxo gouvernement bi. waaw loolu depuis ce matin laa ko gis en fait euh, Diary moom mooy loolu parce que affaire yi ba mu amee depuis boobu ba tey ñëpp ñoo ngi inquiété wu di demande ku si nekk nan ñëpp dañoo foog ne affaire de kidnapping la et tout mooy loolu ñëpp a inquiété d'accord depuis kii fii ma toll nii jaar yi dafa wax ne rek du dellu xam fan fa mu doon jàngee. waaw loolu loo noo ko mën a jàngatee problème mu note la wala problème familial. non loolu moom mënu ma ci sore parce que en fait maa ngi dégg nan ay dafa am problème note man je crois pas que ni loolu noonu raison la bu tax boo xamante ne warul tax mu dellu jàngi parce que fii mooy loolu da ngay am ay mauvaise note mais du tere doo découragé da ngay reprendre parce que la vie est faite ainsi des fois day baax des fois mooy loolu. mais aussi bu ma xamee ni moom ma ngi woon si jàmm jor woor muy def kii bi inquiétude bi yëpp mënoon a génn wax ak nit ñi moo gën ñee inquiété wu et tout surtout famem yaayam et tout ñëpp ñu ngi inquiété wu maa ngi seetaan benn reportage yaayam muy wax di jooy affaire yooyu noonu mënoon na la moindre chose c'était mooy que mu wax seen mu wax ak waa këram daal mën leen rassurer ni moom moo ngi si jàmm quand même fekkente ni décision boppam la moom noonu la ko préféré woon aussi man loolu laa si mën a wax juste euh, que ni mu bañ a découragé te xam ni aussi euh, àdduna di ñu des fois day neex des fois mu naqari aussi il ne faut pas baisser les bras il faut toujours euh, surmonter les obstacles loolu laa koy wax à chaque fois. waxtaan ak yow tuuti rek ci problème mu Diary Sow ba nga xamee ne mi ngi entre les mains des autorités sénégalaises fi mu toll nii jaari Sow dafa lank ne du dellu ci école ba nga xam ne fa la doon jàngee yow loolu ban jàngat nga ci def problème de note la wala vie familial bon en fait euh, mbirum jaari saw dafa dafa nekk loo xam ne bon ku si wax nañ si wax lu la leer en fait parce que ñun Sénégal lañ nekk xamuñu lan moo xew France ak yan condition la nekk foofu donc ku si nekk rek ku siy wax rek maîtriser woo li ngay wax wala nga ñeme wax en fait bon ñun dañ koy souhaiter en tant que sénégalais que mu nekk si jàmm foofu noonu mu nekk si jàmm mu reprendre ay étudiants nga xam ne looloo ko taxoon jot bu muy dem France ba nguur gi yëkkati xaalis bu takku si bursu jébbal ko ko waaw bëri naa yi moroomam yoo xam ne ëpp leen jom gënu leen neexel ñu ngi fii donc bu ko yàlla yóbbee foofu franchement kon lii jot na xew da jéem a ressaisir puisque bon ñu ñëpp dañu am ay pression da jéem a ressaisir delluwaat école ba jéem jàng ah. Bon, en fait, euh, jeune ne dirais le gouvernement. Nous tous, les Sénégalais, bon, on ko jàppale parce que d'abord, Khalela, euh, elle n'a que vingt ans. Donc, euh, bon, je pense que capacité de maturité bi atteindre benn sommet ba mu mën a dékk mu mën a dékku pression nationale quoi. Diary Sow ngi entre les mains des autorités sénégalaises. waaw naa ko. d' accord tegee ci moom loxo Diary Sow xam leen école ba doon jàngee dootu fa dellu. loolu ban bi moom peut-être de jeunesse la mais nañ ko encourager rek quoi parce que tamit euh, xale la ndaw la peut-être expérience baa manqué mais il faut ñu am ñu koy suivre voilà te aussi nit ki bu defee lu baax toujours il faut ñu koy encadrer quoi. voilà warul nekk aussi un moyen de la déstabiliser nañ ko recaser rek xamal ne ko aussi euh, voilà y possibilité des possibilités euh, voilà et que vie est ainsi faite xam nga y a des hauts mën na dem ba benn moment donné ñu am situation bu baax mais beneen moment donné aussi. ñu tombé à l'échec quoi wala dara mais lu mu mënti demee rek il faut toujours gérer voilà aussi surtout public sénégalais bi comprendre ko quoi bañ koo vexé sinon mën na andi yeneen yeneen conséquences ci comportement yi quoi voilà. d'accord le fait mu bañ a du dellu ci école ba mu doon jàng yaakaaroon ay notam. Mhm. Euh, moo xaw a mu am ci gàcce wala problème familial bon d'après li ñu li ñu jotul xamal si affaire note yi laa la ñu wax de nee nañ peut-être que note bi li mu ko amee ak par rapport ak moom euh, performance am moom moo ko jaaxal quoi. voilà mais comme ni ma ko waxee rek ah l' essentiel est que elle soit mu jël conscience ni voilà la vie est ainsi faite et que il faudra travailler dur voilà et que lu mënti ñëw rek l' essentiel il faut il faut savoir que y a des possibilités de faire mieux quoi parce que euh, y a des meilleurs hommes qui étaient là dund nañ situation yi mel ni voilà e je comprends parce que tamit boo amee yenn statut yi nii am yenn niveau yi xam nga ñëpp a lay xaaree fenn quoi léegi mu dem ba moment donné nag affaire bi mu kiiwee xam naa c' est un choc mais n' war a kii quoi dañ ko war a motiver quoi voilà voilà voilà de persévérer davantage et de ne pas baisser les bras quoi voilà parce que la vie est ainsi faite parce que di nga gis étudiant xam ne euh, am na niveau bu mel ni mais bu dee euh, mën na may accident de travail et tout ça arrive voilà donc affaire moom ça ne veut pas dire que nit ki amul niveau wala dara wala et que il faut toujours persévérer quelle que soit la situation. mbirum Diary Sow yënga mu toll nii mi ngi entre les mains des autorités sénégalaises. ah ah Diary Sow. si parce que si je me trompe maa ngi doon dégg nouvelle bi. durant ces derniers jours ñuy wax disparition Diary Diary Sow ñu naan dañ ko enlevé lu nekk ma ciy dégg lu nekk mais actuellement mu ngi ci autorité les médecins des qui commande des autorités sénégalaises. d'accord Diary Sow euh, bañ ne du dellu ci école ba nga xam ne rek fa la doon jàngee yow loolu ban jàngat nga ci mën a def. bon bon si j'ai des question à poser damay damay wax donc pourquoi lu tax mu lu tax daal du dellu foofu noonu mm-hmm. donc cela veut dire problème mu bon. peut-être problème mu note la wala wala problème familial wala daal affaire racisme si je comprends pas bien est-ce que dafa amul ay notes yi mu am fii ndax de ko amul foofu wala deet waaye. voilà chers téléspectateurs ñoo ko déggandoo li nga xam ne rek moom la étudiants yi wax problème mu Diary Sow problème de note la wala problème euh, familial dégg ngeen rek euh, li nga xam ne rek jot nañ ko taataan fi di leen jox dig daje rek euh, beneen yoon incha allah.